الأبصر والسفر الحمد لله والصلاة والسلام على bokki jullit yi bokki taalibe yi jataay bu tedd bi ngeen gis mu am ci kanamu kilifa gi di seex Mouhamadul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacké mooy jàmbaari Serigne Touba yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi partout ci àdduna bi di liggéeyal sëriñ tubaa liggéey bu kenn nattablewut bu ñëpp teg bët jàmbaar yooyu nga xam ne bi ñuy jóge fii di dem seeni kaamili alxuraan ak seeni dolli xasida rek lañ yor waaye ku am cuubuk sëriñ tubaa foo dem dangay ngay cuube waaye kenn du la cuub moo tax bañ demee ci réew ma partout dans le mont jëndal nañ fa Serigne Touba kër di fa jàng xasida di fa jàng alxuraan di fa julli ajjuma di fa yar doomi tubaab doomi nit ñi nga xam ne ña ngi fay juddoo di leen xamal seen diine ñooy ay jàmbaari fàkk tëdd yoo xam ne liñ dugal ci développement wu Sénégal ay milliards yu dul jeex la ndax kenn koo gis ci ñoom ku nekk boot na lu mat téeméer ci ginnaawam te yàqulu ko dara ci liggéeyal Serigne Touba mbooloo moomu nag. sëriñ bi daf leen a fonk lool ndax dara gënta métti ub sa kër wan sa ginnaaw sa njaboot waaye ba nga àggee fa ngay demit lu mu metti métti ak lu mu tar-tar fàttiwoo sëriñ Tuubaa benn yoon yaa ngi koy ñaqal guddi ak bëccëg te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tukkikat daggit la ci mbugal waaye ñoom lu mu metti métti keroog ba mu gën a métti lañ gën a bëgg sëñ tubaa keroog lañ ko gën a gëm keroog lañ ko gën a doyloo ba tax na buñ doon lim li nga xam ne def nañ ko ci réew mi te def ko ci dëkk bi te jàppee ko ci liggéeyub Serigne tubaab yi fi la nuy fanaan àdduna bépp mbakke teew nañ ci sa kanam ci sa woote bu tedd bii nga xam ne sa maam ju baax ja Cheikh Ahmadou bàmba dafa waxoon ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bisu fukki fan ak juróom-ñett bu dellusee ci safar li tàmbalee ci ginaar ba ci gëléem bu ci kenn xeeb dara bu ci kenn yéem dara képp koo xam ne amoo ko sax demal fu ñu ko defaree ba mu yegg nga xéewlu fa te fas ko bu ko defee ña nga xam ne am nañ ko di ko def duñ la ci ëppale dara kon sëriñ bi mbooloo maa ngi nii ci sa kanam Europe ñëw na Amérique ñëw na Asie ñëw na Moyen-Orient ñëw na maanaam euh, fi nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, diaspora bi daal ñëpp a teew Afrique Amérique Europe Moyen-Orient ñëpp a teew ci sa kanam. duñ def lu dul jël kàddu gi jébbal ko Cheikh Ahmadou Bamba Mboup mi nga xam ne moo féete France mooy lim délégation yi ñëw yëpp ak ku war a jël kàddu it moom moo la ko jox waaye Mbàkke jàmbaar yi jàmbaar yu mat a ñaanal lañu ñu baax lañu ñu bëgg sëñ Tubaa lañ maanaam kuy tuddoo sëriñ Tubaa moo xam da bokk ci sëriñ bi wala nga doonub seex yàgg nga jóge fii fekk leen bitim réew ñu teral la ba noppite te duñ ci séentu dara. te defuñ ko lu ngir sàkku ngërëmal sëriñ Touba. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. sëriñ bi ginnaaw buñ la nuyoo ñaanal la nga yàgg fi lool ba mën a yëggale liggéey bi ñu teg ci sa loxo ñu ngi lay xamal ni diaspora bi yépp ngi nii ci sa kanam. dañoo yemelewul Cheikh Ahmadou Bamba ak dara nag waaye fa liggéey ba dëgg-dëggee nekkee muy mois d'août lan ko won gannaaw ne ko Cheikh Ahmadou Bamba moonu la gënal tey jii xam na ni ku xam ab été août la ñëppi xaar waaye nun wutunu Cheikh Ahmadou Bamba moonu gënal loolu kon sëriñ bi bu dee waa France sëriñ Modou Fall Kébé moo leen fi toogal bu dee Italie Serigne Cheikh Touré moo leen fi toogal bu dee Espagne Serigne Dame Lo président de la fondation Khadimou Rassoul moo leen fi toogal bu dee Serigne Moustapha Fall Mouride Sadikh njiitul CSD collectif sénégalais de la diaspora Serigne Cheikhouna Silla coordinateur de la diaspora Japon Cheikh Mbacké Touré Brésil Serigne Diouk Suède Baye Ndiaw Ndaw Norvège Serigne Ablaye Silla Gambie Serigne Mbaye Tène gànna gànna moom tey laa ko fi mës dégg gànna Serigne Mor géy waaye ñëpp ay ñëw ñëpp ay ñëw représenté. sëñ bi ne am na ministre bu fa bàyyi koo sax ren ministre bi yor wàllu bi ne dafa bëgg Serigne Touba gëm ko. est-ce que. ne bëgg a jaayante ne léegi mu war a yegsi sax. macha allah bisimilah demal. Daayira Ansaar Serigne Mbaye Gueye. ak sëriñ saaliwu Mbacké italien ku nekk xam ko ci ni mu mel ci Serigne Touba Allemagne sëriñ Pape njaay Argentine sëriñ Dame toskaana sëriñ Serigne sëy Sey Milan Serigne Bathie Niang kon defe naa ni Luxembourg bindu ma ko woon waaye sëñ Abdou Khadir Gueye kon sëriñ bi ñii ñooy waa jasporaa bi ñëpp a ngi nii kenn desul jàppon ba amerig ñëpp a ngi fi euh, comme xam na ni dangay xaar yeneen gan nag du ñu bëgg a téye bi lu yàgg alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokki jullit yi bokki taalibe yi murid yi rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nekk bitim réew fa ardullahi waasiatun fa iyaaya fa abudun huwa allazi ja'ala lakum al arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur looloo leen tax a dem ci bitim réew sëriñ bi ñi fi fi njëkk a jóge gàddaay booba immigration bitim réew xewagut waaye jóge ci dëkk yi dem booba tàmbuli na aay woo leen tere loon ngeen bokk itam ci ñaari aay yi nga xam ne suñ Sëriñ Tuubaa waxoon na ko benn suñu mbokkum tukkuloo ku ñuy wax xamit am ci sëriñ Chouaib bu laa ko déggee. Mm-hmm. daa dikk ci sëriñ bi ne ko dama bëgg nga dénk ma ndax sama ñaar doom yi kii itam jëpp mooy jàng alxuraan ak jàngale ko sëriñ Tuubaa ne ko rijalun la tulhihim tijaratun la bayhun an zikrillah mu ne ko hmm? mu ne ko ci des moo féetuwoo ci wàllu kër gi sëñ bi ne ko wa axaruuna yadribuuna fil ardi yabtaxuuna fadila yéen nag yéen a tontu Sëriñ Tuubaa <laughs> indi inni uxaatibu nasaara turra fii ardihim li maliki muturra na ngeen xam ne kon yàlla ci dogalu suñu borom yàllaa leen tànn yóbbu leen bitim réew ngeen defa daan doole waaye dafa liggéey Sëriñ Tuubaa te ku ci ne ko xam condition bitim réew ni méttee ñun ñi nga xam dem nañ ci bataay maa ngi fàttaliku 1997 ci Milan ku ñuy wax Serigne Moussa Ndiaye mi ngi dund nekk naa fa ci néeg fukki fukki fukki fan boo xam ne néeg ba la fa ña fay fanaan mën na fukki fukki nit man mii sax man mii sama jëm bopp. kon kon condition yi tukki man xam naa ko moo tax boo xamee ñii tukki li ñu daj waaye lu mu tar tar tar tar tar tar dem ci taw bi di jaay waaye bu dikkee li ñu njëkk jëf mooy joxe addi Serigne Touba tey boo demoon Italie dafa ne ci kër Sëriñ Tuubaa léegi mu jege ñaar fukk ah nga dem France dëkk boobu région boo dem daanaka mu ngi bëgg am kër Sëriñ Tuubaa Amérique it daanaka xaw naa jege fukk ak nangam Afrique foo dem ci adduna si ba sàppoog si ña ngi bëgg jënd kër kon ñoom ay jàmbaar dëgg lañ di góorgóorlu ci taay taalibe Sëriñ euh, daayira Sëriñ Tuubaa yi waaye itam di góor góor góorgóorlu ci yor seenu njaboot ngir xam ne Sëriñ Tuubaa dafa santaan liggéey kon sëriñ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 هماني هلا ماهل ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي زفر هماني ألا ماهل ما الأبس والسفر